salaamaaleykum mbolo mi ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam te di len jaajeufal surtout la Cojer féminine tay dañoo ñëwoon pour célébrer la journée porte ouverte de la Cojer féminine bi à la tête kumba tin mi nga xam mom moko jité ko ak def mobilisation bu ngand gis ngeen tay toute la journée ñi lañ def pour vulgariser les réalisations de Serigne Gueye Diop aussi woné les perspectives de docteur Serigne Gueye Diop pour ñu élire ko au soir du 23 janvier ci loolu nag dañ cee am euh, sentiment de satisfaction Nous gis nañ toute la COJER presque toutes les jeunes filles de la commune ñoo ont mobilisé wu dugg ci marché bi dem def visite au niveau au niveau de la zone économique industrielle dem nit avec euh, ñi nga le chargé de la communication du maire docteur Serigne Diop expliquer leen les entreprises yi nga xam ne ñoo fa nekk ak li ñuy ci euh, pour massifier li nga xam la COJER en tant que tel fexé muy goor muy jigen ñom ñep ñu and bolo liggéey gëna yaatal nga xamné au soir du 23 janvier 2022 docteur Serigne Gueye Diop day gagner les élections avec une majorité écrasante mo taxone nak tay dañuy euh, magnifier euh, de rafetlu li nga xam la docteur Serigne Gueye Diop au niveau de la commune de Sandiara ci domaine éducation ci domaine emploi mais aussi ce domaine agriculture loolu nga xamné mom mo nek euh mom mo nek intérêt jeunesse bi nek intérêt deuk bi nek avenir Sandiara mo taxone tay nak ñu mobiliser woon ànd ak la COJER féminine ci nga xamné Kumbatine euh, moko initier moko organiser initié ci gëreum organisé ñu ko ciy aussi parce que Serigne Gueye Diop lii la bëgg politique suñ ko waxé massification la massification et animation De gis nañ tay li massification animation la gis nga jeunes filles lañ ñi nga xamné ñom ñep am carte d'identité am carte électeur voter yi vulgariser les réalisations de docteur Serigne Diop mais aussi de massifier le parti Lolu ñu que nous di ci kon ñu ngi gëreum docteur Serigne Diop di son conseil municipal di tous les responsables communaux euh, de l'APR mais surtout des gërëm de gërëm ki nga xam ne Kumba qui nga xam ne moi initialement, formation spéciale à Kumba chapeau à Kumba Nous voulons lay encouragé te di la woon ne dinañ la gunge kon Nous ngi wax ne ñu ngi di rendez-vous le 23 janvier 2022 docteur Guèye gagne Diop les élections avec avec un pourcentage de 99,99%. virgule 99 pour cent. di nuyu yéen ñëpp ku ci man la Coumba madame Tine responsable de la jeunesse féminine de Sangara. vraiment mangir nous nuyu ñëpp di gërëm ñëpp woote ñu wuy si la yombul mais vraiment lii fait wane né. Sangara et ses 32 villages sont représentés lii fait wane né. fu góor taxaw jigéen mën na taxaw bu nekkoon ñun kese du neex bu kese du mais mixage bi charme bi vraiment tey sama xol dafa sedd woote ñu wuy si la dafa dafa mais aussi objet bi nga xamante ne moom la porte ouverte le fait que vraiment ñu wone vulgariser aussi les réalisations du maire loolu aussi moom moom moo ci gën am solo dem nañ visiter ay usines ba pare ànd ak ay xale xale yu mentor moo fi def ne tam

John, je veux nommer Mamadou Sow, je veux nommer Babacar Fay, je veux nommer Boubacar et tant d'autres hein. les Ndiol Sen, les Aliou Nying les Omar Sarr kon du de rien du tout place lay wut xaw ma poste lay wut dugg ci réseaux sociaux yi bi monsieur a ñun duñ hein. jamais ay jeunes ñun dañoo xaaru dara ci dañuy liggéey ta yalla yàlla tax xaaruñu dara ci monsieur le maire parce que monsieur le maire li ñu doon xaar ci mom lepp da ko def kon nak monsieur le maire sa ginnaaw bandang au soir du 23 janvier dinañ la falaat dinañ la falaat avec un taux avec un taux de 99 comme ni ko xamantene mom la ko sama frère waxé kon nak bul tiit bu ragal